asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jàkkaarloo nji duñu seetaan ñoo ngi leen di nuy kenn ku nekk sa tur ak sa sant ci di leen ndokkee lu baax a baax mu mel ni mbokk yi su ngeen gisee jotaay bi ngeen xam niñ ko baaxoo def ci seen site internet murit point info dikkati nañ ci seen émission bi nga xamante ni moo di yeewu yeewi yeewu yeewi di émission boo xamante ni dañ ciy dalal ay kàngam wala itam képp koo xamante ni da ngay liggéey ci xeet bu nga xamante ni xeetu liggéey boo nekk rek ñu fekk la fa waxtaan ak yow ci liggéey bi nga xam moom nga nekk moo xam kilifa diine moo xam kilifa aada loolu nag tax na ba tey ñu daloo kenn koo xamante ni ndaw la nekk ci dëkk bu sell bi nga xam ni mooy Touba la dëkk waaye tam nag ñu fekk fii ci Dakar ñu fas yéene séq ak moom jotaay boo xamante ni dana jëm ci wàllu jaar-jaaram waaye tam ñu fas yéene waxtaanee ak moom li nga xamante ni day aju ci wàllu politique ndax ndaw la loo xam ne sóobu na ci wàllu politique bi Politik boobu nak mu am ben mouvement bu nga xamantene taxawal nako di kuel go xamantene moy convergence di bawal la taxawal ñu fassiyé nak sék ak mom jotaay bobu modi serigne mohammed lawine Lamine Bara Lo sëñ Bara ginaaw buñ la nuyo pare ñu ziar la bàyyi la nga parasanté wu ak euh, suñ bëggoon xam tay kan moy euh, Barlo Lo sëñ Mouhamadou Barlo Bara Lo lan nga ñi wax. cheikh bi ñoo ngi leen ziar di leen sante di leen jukkel tay ci déplacement bi def ñu sét suñu. Mouhamadou Lamine Bara na bu ñu ko dee présenté dina yomb daa nekk ndaw lu dëkk Touba. dëkk digg Daaru Xuddoos diggante kër suñ chony bu ak marché Daaru Xuddoos mbeddu kër suñu Cheikh Saliou dëkk di dëkk digg Daaru Xuddoos jànge Daaru Xuddoos jànge fa daara fu mel ne daara yi Baye Sëñ Jaw jànge tamit daara Aynu Rahmati daal di dugg école privée Serigne Cheikh ñu sant Serigne Cheikh mi ñu fa defal école ñu jànge fa ba am fa certificat yàlla defaloon nag jamono jooju ñu amoon résultat yu xaw a baax yàlla dimbali woon ñu jàlloon concours britannique militaire hmm. bi ñu jàllee concours boobu nag ñu sélectionné woon ñu yóbbu ñu réewu Mali donc dans le cadre de la coopération militaire si nañ demoon Mali def fa Prytanée fa la jàngi ba am fa bac hmm. ginnaaw bi nak ma ma ñibbi Sénégal bi laa def sama étude supérieure euh, daara ñu naan ISM hmm. légui sax amna na institut supérieur de management fa la jangé licence en gestion master en marketing ma nekk tamit ko xamné

Euh, loolu si la mooy si activité professionnelle ginnaaw loolu tamit ni nga ko waxee rek nekk ndaw ñoo xam ne tamit suñu réew daf ñu soxal te bi jang jàng ba léegi euh, suñu yéene mooy li ñuy jàng li ñu xam ñu man see jariñ suñu njaboot suñu waajur mais aussi man see jariñ jariñ suñu mbokk Sénégal yi ak suñu mbokk dëkk yi donc loolu moo tax wàllum politique euh, nekk lu ñu soxal de manière bref daal xam naa ne loolu lañ man a wax si wax lañ baaxaloo. Euh, ci présentation bi mu mel ni kon ndaw lu soobu fas yéene liggéeyal réewam jaar ci ay jaaruwaay ci wut xam-xam ci côté bu yu bëree bari ni nga ko waxee dem ba Mali waaye itam nga ñëw ci Sénégal ngir eggale sa xam-xam ci euh, fànn yu bëri ni nga ko waxee waaye itam nag bi loolu yëpp pare itam ni ñu waxee toggoo rek ak loxooy neen jim nga yëngatu sa yëngu bopp yoo xamante ni da koy def ngir tasaare. li nga xamante ni mooy métier euh, tas xabaar ngir mu gën a yaatu mu mel ni nag léegi nga sóobu ci wàllu politique dinañ ci ñëw ci kanam incha allah rabbi waaye nag fii njëkk a euh, ñëw mooy kenn ku ne xam na ni lu ay di njàmbat ca li xew jamono ji ñëpp gis nañ ko muy ni ñu caricaturé ku tedd ki di Serigne Touba Khadim Rasoul yow nga dëkk Touba di sën am itam gis-gis ci réew mi euh, yëpp ban jàngat nga am ci loolu. waaw loolu li ci jiitu mooy naqarlu ko. Hmm. te naqalu gi ca ne rek lima nek nekk murid ma tuba Tuubaa tax xam nga rew mu nek daa am ne moo koy màndargal mu nek tamit amna ño xamne ñoy seen repère te bo ñewé Sénégal jëf suñu histoire suñ tuba man nañoo jàpp ne ki nga xamne ñun moy moñu moñu moñu rassemblé muy musulman bi muy chrétien bi suñ tuba référence pour ñëpp nek symbole pour rew mi yoonu bu ñu tamit au delà du Sénégal nekk yoon woo xam ne yoon bu am taxawaay la ci Afrique de l'Ouest donc bu benn journal mel ni Jeune Afrique ñëwee tey daa di caricaturer symbole boobu Sénégal moo war a tontu. te jàpp naa ne waxtu bi ñu ko dee bi ñu ko defee rek déjà intellectuel mouride yi nekkoon sur internet sur la toile ñu njëkk réagir di def lan ñu bëri bind nañ Jeune Afrique wax ko seen naqar wax ko lan la signifie Sénégal wax ko aussi jëf ji lan la mën a jur. bokk na si li tax tamit yaakaar ne même bu fekkee ne nee nañ président Macky Sall woote na Jeune Afrique mais loolu bokk na li tax ñu fléchir ndax man def naa ko yeneen murid yu bëri def nañ ko yeneen Sénégal def nañ ko yoo xam ne du ñu sax def nañ ko bind leen wax leen seen naqar donc bi loolu jàllee euh, gis nañ ko fii samedi bi marche bu bëri am na. murid yi ak sénégalais yi de manière générale génn. wan opinion bi ne leen Sénégal kat am na loo xam ne moo ko moom. te nangu kenn yàqal ko ko. Hmm. ñi nga xam ne moo leen di giddee moo ñooñu ñoo ñu jaral lépp. Hmm. te duñ bàyyi kenn ñëw suñu réew di leen gàkkal. Hmm. mais nag jàpp naa ne am loo xam ne ba léegi des na nit ñi génn nañ waxte nañ seen wax nañ seen mécontentement. mais état bi aussi war na mën a joxe exemple. te message boobu du nekk seulement pour Jeune Afrique. mais pour tous les médias internationaux lay nekk. message lay nekk pour kuréel yi nekk bitim réew yépp État Sénégal war même de manière symbolique interdire la distribution momentanée de jeunes Africains. bañ xam ne que nii ñu la population Sénégal àndu là, mais nguurug Sénégal tamit en si. loolu c'est ce que laay demandé. Hmm. et c'est une mesure qui peut se faire pour xam ne dina tax Jeunes Jeune Afrique gën a li ñuy def parce que lii peut-être ça defal na une publicité yëngu gii ñu yëngu publicité pour Jeune Afrique. Hmm. mais au-delà de publicité boobu nag war nañ fexe loo xam dina laal intérêt directement. nga xam ne à la prochaine fois bu ñu demee bay laa bay tudd Sénégal dinañ xam lu ñuy wax ci Sénégal état bi ci la war a jàpp wane ne sénégalais yi ñoom ak seen état am na sujet yoo xam ne duñ ci réeroo sujet yi nga xam ne dafa laa réew mi yëpp ñoo ci bokk xalaat ñoo ci bokk dóorandoo te lii occasion la ci pour état bi. li ñu bëggoon fi ñu ñëw mooy euh, sa jàngat yow en tant que euh, koo xamante ni xeltukat nga saytukat nga itam ca euh, communicateur nga. bokk ci euh, presse bi milieu presse bi itam nga am ci pàcc bu yaatu ndax mën nañoo xam tey lii liberté la wala itam euh, li nga xam ni mooy laïcité la ndax soo seetloo laïcité itam bokk na ci li nga xamante ni bëgg nañ koo gën a imposer suñuy réew ci jamono bi ñu toll nii ci euh, référendum bi nga xam ni war nañ ko woote jamono ji ji ñëw ci kanam. dëgg la waaw presse moom bokkoon ci mais nag léegi xam naa nekk fi act acteur bu actif mais manqué jour ba léegi mais wax nga ko xam nga àdduna bi.

damay offensé ñi leen gëm donc liberté d'expression ak nu man di mel wërta permettre nit di offensé ma ne nitam parce que ak lu mu am liberté d'expression liberté d'expression daa am loo ne benn respect la bu simple bo xam ne nit ku ne war na ko mën a am beneen question bi mooy wàllum laïcité yaa ngi koy wax xam nga Sénégal réew moo xam ne ñu ngi naan 95 pour cent de musulmans ñu am fi tamit suñu mbokk catholique yi fi nekk xam au moins def nañ 3 pour cent donc 98 vingt dix pour cent yoo xam ne

amna na xamné ne buñ ko ci buñ ko ci buñ ko ci sacraliser rek buntu lay nek pour ñeneen pour ñu réclamer lenen parce que après laïcité euh, droit de l'homiste yi certains droits de l'homiste lu nek lañ nar a ci ginnaw hmm. buñ xasse ba instituer ko suñu bir constitution après dina xawa a pour ñu revenir ci yenn yenn mbir donc occasion la pour état bi même bu dee dugal laïcité mais mu définir ñu ban laïcité le Sénégal di adopté ban laïcité le Sénégal di adopté donc pour man débat bi foofu la nekk ñu def attention que ça soit état que ça soit la population te tey jii am na kuréel jug Touba yo xam ne commencé nañ ci wax. Hmm. maa ngi leen féliciter déjà parce que lu am solo la daa am benn rôle de veille boo xam population bi moo ko war a def war a xool li nga xam ne mooy constitution Nek li ñu war a régir. ñu xool lan ak lan lañ ciy dugg. loolu am na solo ci ni nga xamante ni noonu nga noonu nga noonu nga àddoo waaye nag euh, beneen euh, pàcc bi ñuy dugg muy ci wàllu euh, politique ndax gis nañ état wu Sénégal jamono ji 2012 ba jamono ji ñu nekk. Euh, président Macky Sall moo ne ci nguur gi waaye nag suñu seetloo itam euh, léeg-léeg euh, ay sondage génn ñu ni Gambie sax moo ñu jiitu waaye ñoom ren génn nañ ni lu toll ci 6 pour cent avancé na ci réew mi ci développement bi léegi ñu bëggoon a xam tey ci ñu bëri bëri itam taxaw nañ weddi ko ni loolu amut ay faux chiffre la ñu joxe yu mel noonu kon ndax tey nan nga mën a jàngate loolu loolu ànd nga ci yow wala. croissance kenn du ko lekk loolu lañ loolu lañ ñuy wax waaye tamit croissance tamit dañuy permettre ñu xam nan la réew muy doxee. Hmm. état Sénégal ñu ngi ne def nañ plus de 6 de croissance loolu tamit ñu fekk ko ci lu ci bëri lu mel ne euh, mbay mi. Mm-hmm. mbay mi apparemment moo def jéego yoo xam ne moo ñu yóbbu foofu. Mm-hmm. ñu bëri nag ci économistes yi euh, bañ nañ loolu mais xam li ci ëpp solo mooy euh, croissance même bu doon 10 cent ci ëpp solo mooy nan la population bi di ressentir est-ce que croissance boobu c'est répartition bi baxna mhm. est-ce que ñi nek biir Sénégal sori nek ci àll ci dëkk yu sori est-ce que croissance boobu ñu wax ñu ngi koy yëg est-ce que croissance boobu ay doomu sénégalais ñoko produire mhm. est-ce que wala ajoutée bi fii réew mi la dess est-ce que doomu Sénégal ay plus sénégalais ñoo produire mhm. est-ce que mi ngi ñuy mi ngi profité bu baax yan secteur ñoo ñoo def croissance boobu loolu ma question yu am solo euh

inclusion sociale xam ne ñëpp dinañ ci yëg seen bopp muy baykat bi muy bureaucrate bi muy ki nekk si profession libérale muy ki nekk ci sàmm euh, sàmm wi mu nekk croissance boo xam ne li ci biir dinañ ko yëg mais waxale fi mu nekk nii da nga am ay secteur yu mel ni ay secteur secteur nit ñi opérateur télécom yi yoo xam ne ñooy def chiffre Sénégal ñooñu nag bu ñu gonflee suñuy suñuy suñuy chiffre ñaan Sénégal def na 6 pour cent Sénégal euh, euh, création création de valeur bi lii la alors qu'au fond du nekkul ne xaalis boo xam ne day doxal suñu économie dëggantaan njaay ku mel ne Orange déjà actualité la euh, gars yi ñu ci ciy ak licence bi jeex. Mm. mais en plus la yoo xam ne euh, ci lu bëri ci gis su borom xam Séné Sénégal yi te mu nekk lu normal des nañoo jouer seen rôle ci économie nationale. Mm. parce que daan nekk grande entreprise yoo xam ne peut-être bokk na si ñi ëpp lu ñu employé Sénégal ñooñu dañoo war a porter le développement du pays dañ ko war a porter état war na fexe ba am baat ci entreprise yooyu ba nga xamné sen création de valeur dina amal njëriñ bu baax économie bi mbañ a lo xamné fictif lay doon ci suñ suñu compte nationaux miser une chaîne agroalimentaire de la logistique conditionnement bi transformation bi Mouhamadou Bara ñu gis ni euh, ministre bi nga xam mo yor walu mbay mi dem na Saalum bërki dembu wax na ni lepp lu nga xamanteni moy gerte liñ ci soxla won ba liñ ci soxla amna ñu ko ëpp euh, tay ñu bëggoon xam euh, ndax gerte gogu ñu am euh, mu ba ban ñi am nañ lu ci ëpp tay ca ci ngeen rew mi ci côté mbay ak yu mel nonu gis nañ tam 2017 président wax na ni bëggatuñ légui jëggaani lu jëm ci walu ceeb ak yépp ci dëkk wi lañ ko bëgg di liggéey di ko muy ñor ñuy def consommer local di bay di bay dunde loolu kon ban jangat nga ci am fim mu toll lu jëm ci promouvoir consommer local ñun dañ ci d'accord ndax gëm nañ ne mooy li ñu mën a jëmale kanam mais nag euh, boo nee par boo dee wax waa Sonacos ak yeneen entreprise yi pour ñu gën a góorgóorlu tam da nga parce que boo xoolee su réew mi dañuy miser lu bëree bëree bëree bëri sur cette douanière importation yi dañu see tënk ba nga xam ne parfois dañuy fàtte promouvoir euh, essence su consommé local parce que Sonacos aujourd'hui li tax muy jafe Sonacos fe euh, mën a mën a taxaw bokk na ci importation d'huile ñu bari ko gis mi ngi juk mi ngi dem Indonesia, mi ngi dem Dubai, mi ngi dem fenen di indi diw ay recettes douane lay def mais de notre côté aussi cost du meuna dund déjà xam nga xam nga euh, économie industrie dañ kay dañ kay couver manam kay boof. tank hmm. kay may tank bam deuguer

xam nga foofu agriculteur yi am na fi ay kuréel yu fi nekk ñu mel ni ISRA yoo xam ne ñu ngi def recherche ñooñu war nañ leen gën a accompagner ci semence ba nga xam ne oignon bi ñu produire dina méngóog li nit ñi xaar ñaari mbir la yoo xam ne di parallèlement lay demee temps bi état bi def ay restrictions pour wàññi importation bi en même temps aussi dafa war war accompagner agriculteurs aussi pour ñu améliorer ses sen sen parce que y a tamit semaine la day des gens leur ne yomb te dina si mën a lu neex tamit euh, patriotisme la wax ñu kenn nga jënd lo xamné do ko mais ils jënd dara tamit war tamit répondre say say say besoin te euh agriculteurs

waa patronat bi ñu ci wax fi mu nekk nii dañu leen war a gën a mën a dooleel ba nga xam ne dinañ am ay géants locaux surtout dans le dans le domaine agro agro agro agroalimentaire parce que lekk daa nekk li nga xam ne moo jur. marocains yi fi mu nekk nii boo leen seetloo ñu am taxawaay lañ Afrique bokk na di leen may taxawaay boobu seen léegi industrie agro agroalimentaire dafa dynamique di ñu produire lu bëri di ñu exporter donc ñun à un premier niveau war nañ mën a fexe ba nga xam ne euh, lu mel ne diwlin par exemple Sonacos.

dese naa am jeexintal gu baax suñu santé am na di yenn réew Europe yoo xam ne sax di ñuy limiter seen utilisation mais Afrique euh, bëriwuñu yenn restriction yi lu neex waaye dugal fi te fii yëpp tamit ñu ngi bàyyi lu neex waaye dugal fi suñ industrie dina ñeex taxaw. Euh, dégg nañ fi nga waxee bu baax waaye nag ñu bëri ba war nañoo nungul itam ni président mi ngi dox ay jéego ci réew mi yoo xamante ni ngir teg ay tànkam ngir réew mi jëm kanam la jàpp naa loolu man ci sama xel mu gàtt euh, ndax soo gisee bi mu ñëwee. Euh, indi na plan Sénégal émergent Sénégal nee na itam euh, dina émerger fi ak deux mille euh, nangam mu dem ba réew bokk yi réew yi nga xamante ni yi émerger ci lay bokk ci réew yi émerger ci lay bokk. kon yow noo jàngate plan Sénégal émergent gëm nga ni kon balaa booba dana dana egg foofu wala li ngay gis gun muy li olofi naan ci su naree neex su baxee xeeñ ndax xëy na neex. déjà plan Sénégal émergent li ñu fekkee am am na luñ ci njëkk rafetlu mooy que le fait ñu toog projeté.

boo xoolee ba xool lenn li nga xam ne bokk na lu ñuy taxal tamit mooy que ni agriculture mbay mi jox nañ ko si place mais tamit day rejoindre li ma doon wax léegi agriculture bi nga joxee place tamit dañ ci accompagner bu wóor a wóor a wóor a wóor a wóor a wóor ndax euh, émergence sum réew jëm kanam googu ab liggéey la laaj liggéey bu am solo. te liggéey boobu population bi moo koy porté projet bi vision bi population da ko war a partage te loolu yaakaar ne xaw naa xaw na xaw naa des tuuti. Sénégalais yi jëlalu ñu seen bopp pay sa gàddul ko seen bopp ñu leen koy wayal tout le temps mais ñoom approprié wuñ projet bi loolu mooy un deux mooy li ma doon wax léegi xam nga mi ngi jox ay jéego mais nag li ci solo mooy xam nga réew. bu ñuy taf tafal ci kaw rek dañuy obligé tout le temps di reprendre même chose ci 2035 boo demee même chose yi ñuy def la ñuy defaat ndax ay solution euh, contextuelle rek la ñuy ay changement en profondeur lañ def ay vraies alternatives en termes de politique de développement moo fi amut tey jii bu ñu dooleel dooleel mbay mi mënu maa ko sax ñuy dooleel mbay mi te euh, wàllum formation industrie agronomie dama dama fi dama fi noonu. maanaam affaire agro industrie fi mu nekk nii formation yu dëgër dëgër Sénégal des fay am te loolu bokk na si ñu war a investir donte sax ñu ngi naan jam ñaajo ak université Kaolack bi dina fa am mais loolu daa nekk ay période soo war nañ see teel a jukk ndax bu ñu bayee ba pare duñ bay rek jaay bitim réew dañoo war a bay transformer jaay bitim réew même bu fekkee ne produit semi fini lañ nekk war nañu au moins transformer ci loolu nag la ñu war a accompagner nit ñi fexe tamit ba nga xam ne suñu économie waa réew mi dinañ ci am baat. voilà li de l'économie parce que li ci risque mooy àdduna fi xam ne dañoo seen xaalis fu ñu dégg fa dugalee cent francs dinaa fa am cent ñu doon dugal fa mais ñooñu bu ñu ñëwee di fa dugal seen xaalis amul leen booleeg réew amuñu fa tonton amuñu fa mbokk amuñu fa benn valeur symbolique bu leen booleeg réew mi bu fi dara amoon seen ci Sénégal la tax dem seen yoon xool fu ñu fu ñu francs, fa sam da ba day am no tontoo di nga am no taxawé mais suñu économie bu ñu jël tek ko ci loxé yi ñoo xam ne dara wuñu ak suñu réew ñoo ñu mën nañ ñoo jaay suba mën nañ ñoo xoqatal lu ne man mën nañ ñu ka def motax dañu wara ci PSC bi ci politique publique yépp prendre en compte le privé national ba nga xamné ne ñooñu dinañ am loxo bu baax suñu réew xam nga ñu dëkk ci réew ñoo ñu am patriotisme nous avons des jël yenn mesures pour accompagner l'économie nationale. moo il faut une part dans d'endogénéité dans notre économie te le PS bi parfois da koy xaw occulter donc aujourd'hui je pense qu'on peut euh, recadrer le tir Faire ba gën de nationaux qui sont investissements. Mais yi mu nekk investissement yoo tamit porteur d'espoir lay nekk yoo xam ne dinañ dig jeunesse bi avenir bu bu gën a baax ne lañ dig ñu donc man PSE bi jàpp naa ni dose boobu la war a gën a intégré li si nekk tamit mooy boo nee fii ak 2035 na ma bëgg egg fii 2012 ngay commencé doxle la fay yóbbu dañuy taxaw de kon fii ak 2035 ban société sénégalaise lañ bëgg jëm ba ban genre Sénégal lañ bëgg am si deux mille deux mille trente cinq. nga doog a commencé ko former. Hmm. déjà xale yi war nañ dugal seen bopp. Sénégal bi ñu bëgg am ñu commencé see dox day jëm xale ñoo si parce que 2035 suñu doom ak suñu rakk-rakkaat ñoo ko war a dox ñoo ñoo fay nekk ñoo fay nekk dëggantaan jaay bénéfice moo tax ñoo suñu nekk nii war nañ war nañ leen see dugal dee léegi am na benn dose patriotisme boo xam ne dañ ko soxla walla leen ko jox si école yi bañ am ko attaché wu seen réew xale lu ñu mën di am seen réew moo war a jiitu donc loolu léegi nga xëy commencé. projet de 2035 dans ben genre xam-xam bu la fay yóbbu école bu la fay yóbbu tey jii nga wara tek école yoy ba ba ngeen 2035 da ngaa bëgg ak Sénégal bo xamné ne nek point technologie tay ji ngay investir ci enseignement scientifique recherche scientifique ba pare promouvoir innovation parce que amul benn économie bi dox te amul innovation te bo xolé suñu réew yi des nañu promouvoir innovation donc war nañ recadrer suñu enseignement ba jël en compte lépp lo xam ne Sénégal bëgg na ko 2035 commencé kaa inculquer nit ñi donc revoir en profondeur le système éducatif ba nga xam dina bokk ak li ñu bëgg suñu système éducatif boo xoolee ba xool euh, des naa répondre projet Sénégal aujourd'hui lu mel formation technique yi war nañ cee gën formation technique du forcément enseignement supérieur

yu dëgër yoo xam ne dinañ mën a liggéey. Euh, déjà li nga wax lépp euh, di loo xamante ni bi ay arguments yu leer la ngir ñu mën a teg suñu tànk ngir Sénégal ëllëg 2035 euh, bi mën a nekk ci réew yi nga xamante ni yu émergé la waaye nag ginnaaw bu ñu jógee ci wàllu économie bi itam dañu bëgg a dugg ci wàllu politique ndax seetlu nañ ci jamono yi ñu toll dëkk bi nga xam mooy Touba fa nga fekk baax nekk fii ci Dakar di liggéey.

Euh, jàpp nañ ne lu nekk fa lañ koy joxee ku yóbbu doo dem jàpp naa loolu rek mu leen fa yóbbu. xiir nga sóobu ci euh, politique ak fa ko taamoo ci Touba di dëkk boo xamante ne tam dëkk bu jafee politique la ban risque yéen est-ce que euh, mi ngi ci biir. boo xam ne dafa peser ci Sénégal mooy côté démographique bi même ci côté koom-koom. ci mm. côté koom-koom bokk na ci dëkk yi gën a dynamique. fi mu nekk nii wàllum mbay mi ñu doon wax léegi fi mu nekk nii njaayum njaay njaayum mbay mi gerte jeeg yooyu loolu sooy génne Touba opérateur économique yi dëkk Touba bokk na ñi nga xam ne ñoo yor loxo commercialisation campagne agricole yi bu nekk dëkk boo xam ne comme ma dina am dina mais boo xoolee ba xool Touba ba léegi dañoo desee engagé wu ci politique. Mm-hmm. boo nee Touba normalement ñëpp mu la ñuy xalaat mais ñëpp tamit diine la donte dëkku diine la moo tax ñu fondé dëkk bi. waaye ginnaaw loolu tamit Touba ay Sénégalais ñoo fa dëkk Sénégalais yu bëgg seen réew jàngi am yéene ci seen réew tamit ñooñu tamit benn foofu mën a participer ci dox ci réew muy doxe Touba ñu nañ baat yi bëri nañ mais ba léegi ñi dëkk Touba te Touba ñoom leen dëggantaan tànjaay tamit des nañoo yëngu ci politique bi yaa ngi koy wax léegi euh, naan ndax ragaluñ waaw ñu bëri tamit dañu ragal nañ ñu bëri fa lañ dëkk am xam-xam bi am yéene di mm-hmm. mais ragal nañoo dugg ci politique Touba bi mais ñun dañu tax a jóg yemul ci ndax bu gisee ñu ngi tudd convergence du Bawol euh, bu pour ñun cadre bi gën a pertinent pour projet de développement du yem Touba rek Bawol bi yëpp lay jël ndax boo nee Bawol da ngay commencé Bambey ñëw ñoo bokk même yi. Mm-hmm. ci ay ngëm-ngëm sorewuñ ñoo bokk lu ñuy dund moo tax mënoo penser projet bu dynamique jël Touba bàyyi ñooñu wala nga jël ñi ci des bàyyi Touba donc cadre boobu la ñu boole. maintenant li ñu tax a dugg wax mooy que ne amuñu ay leader politique dëgg yoo xam ne ñooy ñooy porter suñu combat. Ah, am ngeen euh, ay député. am mhm. euh, am mhm. ngeen ñëpp. léegi euh, boo demoon Touba di def sondage. Mhm. mën nga gis koo xam ne mën na laa citer député Touba yi dina jafe ne la kii ak kii ma jote bu dëkk Touba dina jafe waaw ah, noonu la demee parce que sentir nañu parce que jàpp ma ne conviction dëggantaan jaay moo leen yóbbu assemblée contexte la dem nañ fa mais déjà tamit député tamit du député Touba député député Sénégal la moo tax bu ñuy wax député force peut être du meilleur cadre mais li li ñu mën a tënk mooy que ne waa Touba dañoo sant seen bopp ci politique te nag ñu jàpp ne jot na ak dëkk bi di jar ci réew mi ñu ko dëkk war a man a dëggal seen bopp indi seen xalaat ci doxalinu réew mi waaye boo koy indi rek day commencé fa nga dëkk ñu wax penser global agir local ak lépp ñu mën ci mbébét ci réew mi daa foo xam ne fa ñu war mën a tàmbalee fa mën a joxe exemple te jàpp nañ ne suñ gox bee di Bawol soxla na ay doomam fi bu nekk nii ñoo xam ne am nañ ci yéene ba pare jekk la pour doxal seen yéene ñun loolu moo tax ñu créé convergence du Baol nekk mouvement boo xam ne du ay jànkatu tubaab rek du ay jànkatu arab rek mais képp koo xam ne yaa ngi dëkk Baol te gox bi soxal la yaa ngi ci mouvement bi te boo gisee ñi si nekk ñëpp fu nekk nii ñoo xam lu bëri amoon nañ ci association yi ñu nekkoon wala si mu yi ñu nekkoon mais ba ñu waxtaanee ak ñun xam suñu mébét xam suñu engagement ñu bëri di ne ah lii kat nañ ko xalaat waaye ñu ko porté lañ amul woon donc ba léegi lool loolu nekk ñu ngi dox di daje ñoo xam ne jàpp nañ ne bëgg nañ gox bi seen yéene tamit ñu ngi ci gox bi ñu leen di jéem ñu jéem xool nan la ñu mën a mutualiser suñuy force xam nga booloo mooy doole. Mm. baara loo mënut a jóge rek Daaru Xuddoos doxal Tuubaa doxal Bawol ab bëggee mënut a jóge rek doxal Bawol. Mm. daa jot ñu war a mën a booloo suñuy doole ndax convergence idée bi loolu bokk fa njublu. taxaw ne suñu dëkk nii la mel fii lañ ko bëgg a yóbbu fii ak fii lañ bëgg laal. maanaam doxalin politique moo leen moo leen waaw bokk na si bokk na si bokk na si mais xam nga loolu tamit euh, dafa am benn problème bu ñu posé ndax boo nee doxalin politique Bawol day xool kan ak fa nekk ak ban genre débat politique moo fa nekk ci lan la ñuy wax dafa politique est-ce que dañuy wax si lu soxal dëkk bi wala dañuy wax pour défendre ay nit. ñoo bëgg instaurer benn débat politique un débat de développement dans localité. est-ce que nekkul yéen itam da bëgg a yéeg rek comme ni gars wax. Euh, bu euh, bu Sénégal soo yëgagul moom mën ngaa dig nit waaye soo xasee yéeg yaa ngi jiitu rek yéen a yem est-ce que nekkul xaaral ñu xam ñun tamit suñu démarche démarche dig sax nekk ñu di diggee parce que dañoo am projet pour notre région. Hmm. suñu projet que ça soit porteur de voix yi képp ku bokk ci population di ñu dajeeg yow wax wax la fi ñu bëgg a jaar ak lan mooy suñu yéene mais ci projet boobu la ñuy dox mooy lan déjà xool si njàng mi am na ku kuréel lu fa nekk déjà def jéego yu am solo si njàng mi mais xool ñu la ñooy nan lañ mën a waxtaane ba mën a trouver ay solution ci problème yi ñuy rencontré xam nga mbir mi nekkul ne état rek mooy doxal mais mbooloo yu bokk dëkk yu bokk yu bokk dëkk bokk disposition la nga disposition mooy ñoo xam ne am na lu leen bokk yëngal boo xoolee waa Bawol ñu bokk yëngal am ñoo bokk am ñu bokk yëngal loolu rek doole la joo xam ne moo ëpp doole lépp. mais sànq am na bi ñuy wax xoolee wàllu projet yi daal di financement participatif bu nit ñuy dox. nit bu amee projet dañuy dajaloo joxe un euro deux euro am doxal projet mais loolu ñun bawol dafaa yàgg peut être ñi koy dox àdduna fi nekk sax xam mais ñun loolu dafaa yàgg suñu ne dafa yàgg bawol yàgg ci mouridisme ñun moom lañu bëgg poser déjà solo ñëpp xamee ne projet ndax projet am na fu mu teg na ay argument bu ñu tegee ba xam nekk yaa koy dox ku nekk yaa dox c'est un projet inclusif boo xam ne bàyyiwul kenn kenn ëpp ci baat kenn tamit parce que ni ñu jógee ñun ne Bawol lañoo ñoo soxal noonu la Bawol soxal neen problème mooy yan fexe ba boole yoon yoon yi mu nekk benn wala mu nekk yoon yu sorewul day mën a dara. waaw ñu euh, leen euh, région Diourbel bokk na ci nga xam ñu gën a néew kàttan ndóol nit ñi surtout soo demee ci dëkk yi nga xamante ne ñooy dëkk dëkkaan yi di gox goxaan yi métti na trop. ndax yéen am ngeen solution boo xamante ni bii moom ngeen bëgg a indi nit ñi pour mu génnee réseau Diourbel ci ndóol gi mu nekkee wala. ci avant indépendance da boo xam ne maraîchage dafa doxoon trop xam ne sax boo dee xool bokk na ci li porté woon économie bi après ñu dem ci culture arachidière bi gerte gi. boo xoolee zone yu bari Diourbel fi mu nekk nii suuf si joxeetul. Hmm. suuf si joxeetul moo tax dëkk Dakar yooyu ngay wax bokk na ci li leen xaw a suuf si joxeetul courant bi yu bëri courant bi egsiwul problème yooyu moo leen sonal mais beneen affaire mooy tamit xam nga Diourbel maa ngi koy wax léegi population bi pauvre na mais boo xool côté côté chiffre économiquement dinaa euh, mi ngi def dara ndax ba ñooy opérateur économique Sénégal ñëpp dañuy xalaat Bawol Bawol Bawol Bawol xam nañu lool lool ci commerce Touba déjà mooy première alternative économique en matière de commerce au Sénégal. gars yu bëri région yu bëri sax duñ ñëw Dakar Touba la ñuy jënd dañuy jënd. opérateur économique dëkk Touba tamit muy commerçant yi ñoo ngi Touba ñoo ngi Dakar mais de manière générale Sénégal gi yëpp am nañ fa ay points. loolu déjà force la ñun maanaam léegi ñu du affaire état li ñuy proposé ñi nga jàpp nañ ne foofu la Bawol mën a jaar mooy valoriser ñooñu ñi xam ne am nañ am nañ leen opérateur économique ñooñu lañ war a sensibiliser. Hmm. parce que bañuñu ñu dañu leen ci yoon.

am nañ ko si loxo lu ñu bàyyi si gerte ñoo koy jënd mu ñu ko jëndee bala ñu kaa jaay nag war nañ cee mën a jariñ mooy ci domaine agricole yépp Touba fi mu nekk nii depuis nguurug Abdoulaye Wade amoon na projet projet zone industrielle bi mm-hmm. te fi mu nekk nii ñu mel ne suñu afat bi ñu ngi ciy dox mm-hmm. jàpp naa ne bokk na ci li ñu war a gën a mën a dooleel mais première chose mi xam ne moo war a dimbale Bawol kanam

wàllum économie ñooy xol ñun ban participation la ñu am ci réew mi. fexe ba utiliser suñu avantage yi ñu am pour dynamiser son production. parce que li nga nekk problème djubbel moy problème Sénégal de manière générale mais à un niveau local il est plus facile euh, d'agir peut-être moo ñu war a ba suñu opérateur économique ñu changer de paradigme xamné que distribution bi peut-être ñi ci gis seen bopp mais li ëppoon solo pour ñom pour seeni mbokk. pour seen dëkkaloo pour réew mi mhm. mooy fexe ba commencé produire te production bul xeeb dara parce que ni ngay commencé ci ngay am expérience ci ngay innover mhm. ci ngay defee lu rëy mhm. fi mu nekk nii lépp lu ñu bay Sénégal waa Diourbel ñu mën a taxaw ba sóobu ci transformation bi te bu ñu waxee loolu tamit dañuy laal yeneen yeneen affaire yoo xam ne mënta ñàkk parce que boo nee dynamisme industriel di nga wax finance donc jot tamit à un niveau local sur opérateurs investir secteur financier je me dis normalement te gis naa ak le président Serigne Boub initiative mel homme d'affaires opérateur économique ni mettre en place ay fonds à un niveau local on ko a def ba nga xam fonds yooyu dinañ permettre financer activité économique fonds une moom Yo xamné ne waa Diourbel ñoo ko moom waa Bawol ñoo ko moom yoo xam ne fa la dëkk fa la dëkk ndax ñiy def ay placement ci ay banque baax na mënta ñàkk waaye tamit war nañ mën a investir le secteur bancaire ba jéem am ay géants nationaux ay géants locaux loolu jafewut concertation rek moo manqué dajale nit ñi rek moo manqué te bu ñu leen dajalee lu mën na nekk la te ko amee moo gën parce que bu ñu amee loolu si la ñu war a gën a mën a accompagner jigéen ñi accompagner jeunes yi mm. mais mooy li ma leen wax léegi rek loolu ñu jógee feneen ñëw fa. li leen soxal mooy lan rentabiliser seen xaalis seen xaalis am na engagement boo xam ne mënuñu kaa am yow mi fa dëkk rek yaa man hmm. li jiitu fi mu nekk nii mooy fexe ba dajale acteurs yi muy acteurs politiques yi acteurs économiques yi muy régulateurs sociaux yi du suñ sëriñ waaw xam nga dana yomb gi question boobu noonu moo retardé ñëpp parce que dana yomb ak du yomb foog nga soobu si jéem boo jéemee dajeeg ay problème nga jéem leen corriger parce que problème du blocage blocage bi lan la ñàkk mën a surmonter problème te yaakaar naa ay xel buñ dajaloo ay xel nekk ay jeune nekk ay mag te am ambition solution warut a ñàkk mais nag ñu ngi koy waxee léegi liy yombal loolu mooy engagement bu wóor xam ne li ngay wax ak li ngay jëf buñ ko xoolee dina méngoo jëm ci lu doxal sa localité. sax li ñu waxoon ci waxtu jeex na waaye nag euh, ndax jàpp nga wala yéen da ngeen gëm tey ni kon ni ma dégg nga waxee euh, Touba attan na man naa yenu économie bu euh, région Bawol bi yëpp ndax loolu da nga koo gëm. xam mënta ñàkk yàlla dafa tulloolewul te foo dem fu ne daam ñuy jiitu ku nekk da ngay am sa rôle nekkul ne Touba day porte de mais tubaa dafa daam am rôle boo xam ne moom moo ko mën a joué fii mu nekk nii biir Bawol. ndax opérateur économique fa lañ tassalo nit ñi ya fa lañ gëna bëri mais fi mu nekk ni dëkk dëkk yi ñu doon wax léegi ñu nekk ci biir jurbel ñu am ay problème mais dëkk yooyu war nañ mën a nekk ay fournisseur touba touba waaw waaw waaw ah, ah, parce que parce que côté naturel la moo tax bu ñu dëkkee dëkk yooyu bénéficier foofu changer nan lañu ñuy changer mooy touba def positionnement bi ma la wax ci so ci système productif local bu dëgër. Touba commencé produire te loolu mën a nekk la. loo xam ne soriwut du lu ñu calé sur dix ans ci six ans. Hmm. lu ñu calé nii la volonté la bi di arrivé positionné Touba ci système productif local bu dëgër zone yooyu ay zone relais lañ mën a nekk ay zone yoo xam ne dañuy fournir Touba fi mu nekk nii amul suuf soo xam ne war a am bëri hmm. donc buñ xolé ba identifier yeen secteur yeen niche lañ nar a investir dëkk yoy war nañoo positionner pour fournir Touba lool en plus eh, bu ñu industrie boo du concentrer rek Touba parce que dëkk yoy sax fi mu nekk nii war nañoo mën a mën nañ fa war a employé mën nañ fa war implanter ay industrie bu xolé ci walu ndox par exemple gars yi ñu dem ba ngaaw bu dafa def ndox parce que fala fala fala fala bu ñu xoolee boo fala mëna a nekkee dëkk boo xool Touba ci région de Diourbel dañuy gis am na loo xam ne war na faa mën a mais dafa laaj am njàngat taxaw diagnostiquer mm-hmm. étudier mm-hmm. xool dëkk bu ne fan la war a gën a mën a amee chance pour décoller jëm ka faa jàppale. Mm-hmm. mais loolu nag mooy loolu wax foog ñu retrouver idée de convergence bi. convergence des idées convergence des actes. et conjugaison des initiatives. donc foog ñu booloo booloo bi mooy lépp. parce que lu booloo am doré. mbooloo mooy doole. te mooy tànk yoo xam ne fas yéene see dox. Euh, ci ban euh, ginnaaw parti wala euh, leader politique la bootu fi mu toll nii nag wala moom dafa dox day dox ak boppam fi toll nii. question si war tontu parce que chaque fois bu ñu rencontré nit loolu la ñuy laaj koo leen boot mais xam nga action locale dafa am solo. Hmm. instant bi territoire yi. nous dicter la marche du monde mm. action action locale Nous de ci politiciens. politicien mm. avons un projet pour terroir la mm. ñun nous fa dëkk ñu ko bopp lu ñu def tamit ci les projet Bob. la projet du bien du politique projet engagement suñ doole duma ma sàmm du ma dem ba ci arène politique bi suñ doole ñun la ak waa Bawol boo tuñ ci bépp leader politique benn leader politique suñu ambition mooy lan dooleel suñu mouvement véhiculer suñu idée jëf ci terrain bi nit ñi gis ko ñu leen mën a jàppale ñu jàppale leen ko ba nga xam ne fépp fuy instance décisionnaire ci région bi fu ñuy amee baat ñu jéem faa am ba mën a doxal li nga xam ne mooy suñu gis-gis ci suñu gox. li may tàggatoo mooy mooy di tàllal samay loxo waa Touba tàllal leen loxo parce que am nañ yéene suñ gox am nañ yéene tamit ci réew mi parce que boo ñu doon liggéeyal Diourbel liggéeyal Touba Sénégal la ñu liggéeyal parce que lu fa am ci lu baax ci réew mi lay tas leen tàllal seen loxo di sàkku seeni ñaan ndaxte li ñu dugg xam nañ jafe na waaye nag jafe-jafe du ñu bloqué bu ñu duggee lan la ñuy def. ñaxati ñoo koy def waaye li si di baatin di suñu sëriñ di ki suñu waajur di ki suñu am di jàmm di ki suñu waa dëkk di leen wax ne waa Convergence du Baol yéen lañ am te ñi ngi ñaan ngeen accompagner leen ñi ngi ñaan tamit ngeen sànni leen ay ñaan ndaxte ay murit lañ eh, gëm suñu Tuubaa gëm tamit ne am na loo xam ne moo ëpp doole lépp te nekk xam nga taalibe tamit mbiram mooy. wooyee ndigal ak sàkku ñaan loolu la ñuy def di sant sama sëriñ bu baax di sant kilifa diine Touba yëpp ndaxte ay régulateur lañ yoo xam ne seen action dépassé na Touba ñu ngi Sénégal gi yëpp di leen sant di gën a ñaan tamit seen implication ci doxinu réew mi parce que sëriñ daamrul ci réew mi loolu daal régulateur social kuy dajale ay nit war ngaa mën a buuxum réew donc ñu ngi ñu ngi leen di nuyu di feddali suñu tari sant wa Touba gi yëpp sant wa Daaru Xudoos bu baax a baax a baax euh, Lamine Bara euh ñi ngi lay ndokkel baax yow tamit ci euh, taxaway bi di lañ ndokkel bu baax itam mu melni mbokk yi jakkaru ñu ci do ñu sétan ci sen site internet murit point info émission bi nga xamanteni ni la rek buñ jukki won amal kok Muhammad Lamine Bara euh, ci euh, seen émission bi nga xam ni moo di yeewu yeewi kon nag mi ngi noonu yeewu na fas yéene naa ànd ñu yeewi bawal ngir bawal jëm ca kanam euh, comme région yëpp comme Sénégal gépp kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant mbooleem ñi nga xamante ni ñi ngi doon ànd ñu ci duñu seetaan fu mu di nekk Serigne Mbacke Dieng moo ñu nekk loon ci wàllu euh, caméra bi seen mbokkum taalibe Moussa Diop la woon ci présentation bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox dox daje incha allah rabbi yeneen jëmm ci ay jamono wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.